maaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki internet yi ñuy bàyyi xel ñu ngi leen di nuyuwaat baax ak leen ziara fii ci Daaru Salaam ci bés bu mag bi nga xam ne tey moom lañ fi amal muy màggal bi nga xam ne moom lañ jagleel Serigne Cheikh Anta Mbacke di rak ci Cheikhul Khadim ci bés bi nga xam ne moom la doon ganale Cheikhul Khadim ginnaaw bi mu jógee ci géej gi te ñëw wàcc fii ñu nga xam ne moo di ci Daaru Salaam ñu ngi fii ci kër Serigne Cheikh Anta moom Serigne Modou ya am kilifa yoo xam ne dañ fiy ñëw di saafonteeg moom di ko ziyaara ci bés bi nga xam ne bës bu màgg a màgg la bokk na ci ñoom député Alioune Dia mi nga xam ne wóolëre sëñ bi la saa su ne mu nekk lu yàgg nga xam ne dañuy demlante ñoom ñaar ñëpp waaye it Serigne Modou Mamoun moom Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké mi nga xam ne teew na fi xam ne at mu jot day teew ci màggal gi xam naa rek dañuy taataan ci ñoom ay kàddu yoo xam ne danañ ko ci yëkkati mu jëm ci jëmm ju tedd jooju nga xam ne moom la ñuy màggal tey muy Serigne Cheikh Anta waaye it wóolëre gi nga xam ne am na seen diggante ak ki nga xam ne moom moo di sëriñ Cheikh Anta Mbacke wa sallallahu wa sallama ala sant sun boroom tabaraka wa taala bam nu mayee nu fekkeewaat màggalu daaru salaam di bés ak jagleel maam Cheikh Anta ci taxawaayam ci diine ji waaye taxawaayam ci gannaaw mbokkam di xaritam di sëriñam muy maam sëñ Touba radiyallahu taala anhu kon nga daldi tudd rekk yoonu murit nga di ko def itam ci anam boo xam ne na ko boroom doon defee la muy si ba tey ay sëtam yore ko ak i doomam euh, yàlla baaxee ma nag ma ñëw tey jii di jaare si di wéttali si sama xarit sama mbokk euh, maam Cheikh Anta nga xam ne sama diggante ak moom ndima la rek ku bëgg a tàqale biir bee bitti yàq sa ndimo ay taxawaayam it nag senegal gépp ràññeeku ci wàllu diine ji ci joxalante ci rafetal ak ci baax ma fekk fii it sama mbokkum bopp nu bokkee ca Jolof bokkee ko itam nag ci diine ji bokkee ko it maam sëñ tuubaar radiallahu anhu muy sëñ Moodu Mamour mii nga xam ne bi mu egsee li ko maam Cheikh Anta wax kon nag borom kër gi ñëw na di rafetlu nag taxawaay yi bu baax ku nu seen fii rek danga nga ne ah séentu woon nañ ko fa ba bi nga xamee ne bii ci yërmande sëriñ bi ak li xew ci jamono bi taxoon na mu ne kenn ku ne yewi nañ la fa nga nekk rek def fa say ñaan waaye loola xëy na ku ca bokk mën ngaa xam ne bii na nga ne ah gannaaw dama cee bokk daa am lu ma ci am waaye ko ko moom moom ñëw na ca lëjji rek yee ko ko war moo tax ma ne duma ma ca yeble du ma ca téléphoné dama cay ñëwal sama bopp su ma ñëwee nag jolof gépp ñëw nañ ndax jolof kat boo tuddee alxaaji daawuda ja tudd nga jolof te yàlla dogal tey seen kàddu doxee ci sama loxo koo laaj tey mu ne fu mu yendu ñu ne Daaru Salaam mel na ni kon ñëpp a ngi fi lu ñëw nag ci xéewal gi ànd ak ñoom mbégte mi di ziare maam Cheikh dël nag lépp loo xam ne moo ziare mu tegal ni ko ci loxol xalifa bi mu jàll ba ci sëñ Muntaxa yàlla na ko yàlla dolli wér <clears throat> ndaje yëpp nag daanaa ci bég waaye ndajem ren mii ni mu sunna woo itam ni nga xam ne itam noonu lañ amee yërmande ci doomu aadama yi ndax koo xam ne boo ne jóg leen ñëpp jóg waaye am nga yërmande ci ne lor mën na cee am nga ne ah ku ne na mu ko defee fa mu ko war a defee loola bokk na ci responsabilité yi nga xam ne gis nañ ne am na fi ah maam Cheikh mii nag chance su Sénégal la du ma wax genre daaru daaru salaam waaye chance Sénégal la ci ay joxaleem ci jamono yi sunu wayjuur di sunu sëriñ sëriñ Saaliwu yàlla na yàlla dolli ay leeram bi fi nekkee gent bu ma soxlaa sëriñ bi wala sëriñ bi soxla ma ci moom mii la doon jaare mu di ko rafetal lool di ko doxal di ko taxawal loole nag dafa am ak yokkute gu mu dox ci diggante suñu bokk buur gi waaye bu mu doxal itam ci lislaam bi ah fa tabaarakallaahu moo tax tey jii day amaan nañ mbégte lool waaye bi ñu fi fekkee sëñ Modou Mamour mi maa ngi koy wax léegi ne ko doomu soxna la ko yàlla baaxee mu xam boppam xam sa bopp mooy xam-xam bi ëpp ci xam-xam yi waaye xam sa bopp itam na la taxoon sa waajur fu ko seen topp ko mu des ci yow dañ koo fekk Maroc wala mu duñu fay fekk ci durusul asani yi nuy gis wax dëgg yàlla jamono joo xamee ni ji jox nañ ko fa lam ca war a def mu def ko fa su paree yow ci sa bopp nga gis sa bopp lool ca nam ko doon defee euh, ma déglu ko itam daaw fii ci kasu rajab bi waaye ba mu paree itam da ngay daal di santaat yàlla xam ne ku yàlla dimbali daal da nga am ndam ah kon nag bés bii sunu bése sëñ Faliilu nag yàlla na yàlla dolli ay leeram muy sëñ Fallou Mbàkke sëñ Fallum senegal gépp la waaye jolof nanguwuñ kenn ëppale leen ci mooy mbokkum jolof mooy jolof taxawu ñëpp yàlla baaxee noonu ak nun njabootam gi nekk sunu xariti neen njabootam gi ne sunuy bokk waaye ñu di ko doxal mu ànd ak nag ak euh, yërmande ci biir ba lu ñu la gëj a gis nemmeeku sax gëj nañ la gis duñ ko def waaye fu ñu la gis rek mel ni tey lañ la waroon a gis mm. ma di ci sant nag alaaji Fàllu Faal ma yoro bii sama xarit dox sunu ak ñoom lool di rafetal dox ko itam ak maam Cheikh Anta gi tabaarkàlla kon daal daaru salaam gii moom sunu daaru salaam la. ñaan sunu boroom yàlla na nu gën a dollee dimbale ba ñu yàgg ko fee fekk waaye ñu ngi ñaanal sëriñ bi itam yàlla defar ko wér ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa